def naa ko teg ko ci yoon ñépp yëg ko ñépp gis ko loolu nag droit ak yoon may na ko candidat bu nekk waaye beneen candidat waxuma ko defuma ko bu ñu amoon nag jataay politique xëy na doon nañu waxtaan sunu biir réeroo yooyu ñu leeral ko ba mu set wecc mu ciy tudd ku mel ni wax yépp loolu nekkul bëgg jàmm it moom moo tax di ñu defee élection yi ba ci guddi gi ma gis tendance yi te nag amoon ay éléments de contestation ci sama bopp ndax loolu candidat bu nekk mën na ko def dem ci yoon ne lii d'accord naa ci walla lii d'accorduma ci mais bëgg jàmm réew mi tax ma ne loolu yépp duma ci def dara duma ci wax dara téléphoné ki nga xam ni moom la yàlla jox ndam félicité ko ñaanal ko bàyyi ko muy liggéey ndax boo amee ndam Sénégal yëpp ay am ndam ñu ngi nag déglu gouvernement bi ndax yàlla daf ma dimbali ma am ay jaar-jaar yàlla dimbali ma ma gis yu bari fekkee yu bari kon bon bu may wax ci mbir rawatina réew niñ ko téyee damay xaar ba am jumtukaay yépp jumtukaay yi nag mooy loi yi doxal réew mi décret yi muy àndal wala programme yi nga xam ne am nañ ko yooyu bés bu ñu ko gisee rek incha allah di ci wax sunu xalaat de la manière la plus constructive ndax bu dul loolu loo wax rek daanaka ci nit nga koy jëmale kii nii la mel nële la mel te loolu doonul loo xam ni dina yokkal réew mi dara may nuyu nag sama xarit yi nga xam ni ñoom ñoom ñoo organiser lii ñoom ñoo def lii Cheikh Oumar Anne maa ngi lay sant di la gërëm gis naa sa pas-pas sa engagement yow Aliou Sall Latif Zara maa ngi seen Mamoudou Ibra Cheikh Oumar Ndeye Sali maa ngi gis ñëpp yéen ñëpp maa ngi leen di sant yéen ñëpp maa ngi leen di sant isaaxa loolu moo tax lim loolu moo tax lim loolu moo tax lim wóorul Moïse Sarr le maire de Sakal ndax yéen la woon ca njalbeen Omar Sow yéen ñëpp yéen ñëpp li tax tey li tax tey may installer comité d'initiative damay njaboot damay njaboot biñ ko yëkkatee ñii xam nañ ni dem naa ba ne leen nañu dàq bés bi ndax boo dee njaboot ñi ma wax dañoo bëgg a ñëw ñi ma wax dañoo bëgg a bokk ñi ma wax kenn boru leen cee jiitu dëgg ne dama dem ba ci yàgg yéemu sant yàlla toog sama biir néeg ne man xawma lan laa defal sénégalais yi moo tax ma ne leen nañu changer processus bi nañ ko change

sans exclusive ñëpp la wax dinaa waxtaan ak ñëpp benn préoccupation rek laa mooy ku bëgg a jàmm deuxième préoccupation mooy ku bëgg réew mi troisième préoccupation mooy ku gëm démocratie quatrième démocratie mooy ku jàpp ni ku jàpp liggéey rek ñu war a def ku bindoo noonu mën nañoo ànd mu doon initiative commune une initiative boo xam ne ñu ñoo koy àndandoo demee ci ndànk-ndànk def ko ba mu mot sëkk kon comité bi yaatal leen ko vous êtes installé mais nañuy wax ak ñëpp man sama wàllu bopp danaa wax ak ña nga xam ni ñu ngi ci bennoo danaa wax ak ña nga xam ni ñu ngi ci biir APR dinaa wax ak ñi nga xam ni bokkuñu ci benn langue politique wala boog seen yëfu bopp la ñu amoon wala boog ñu nekkoon ci leneen wala boog liñ ñu doon wax ànduñu ci wala boog liñ ñu doon def bëgguñu ko ku ci nekk dinañ la tàllal loxo woo la ñu ànd bu boobaa ñu def nekk loo xamante ni lancement bu mag a mag a mag lay nekk assemblée générale ou congrès grandeur nature nga xam ni ku ci am responsabilité ku ci am cër ci base bi lay jógee xale yi nag war nañ ci jouer un rôle principal ndax xale ni ma ko c'est l'avenir kenn werante ko mais Sénégal ak Afrique yëpp xale yi c'est le présent kon kenn du tabax te ànd koog yéen kenn du tabax te jiitalu leen maa ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm di masawu di masawu ñii nga xam ni ñu ngi woon ci taw bi moo tax ma nangu moon wàcc ci buntu saal bi ma ne ñi taxaw ci taw bi brave ndox mi waruñu maa gën a gore ma dem ba ci ñoom nuyu leen sargal leen remercier leen maa ngi leen di sant yéen ñëpp leen gërëm yéen ñëpp s'il vous plaît s'il vous plaît. s'il vous plaît. may leen ko may leen ko mu conclure. may leen ko mu conclure. maa ngi may leen ko mu conclure. s'il vous plaît. s'il vous plaît. maa ngi rafetlu. teewaayu ancien ministre yi ancien DG teewaayu député yi conseil économique et social lu ëpp téeméeri maire teew nañu fi ak responsable yi nga xam ni ñu ngi jógee ci 46 départements yi maa ngi leen di nuyu pour seen engagement di leen nuyu pour seen détermination Je vous remercie. Je vous remercie.